je m'efforcerai de ne dinaa fexe summi sama mbubu politique nekk ab homme d'état koo xam ni nekkul rek di xalaat élection présidentielle waaye koo xam ni day xalaat nan la suñu réew mën a def ba jëm ci kanam ci climat bu doy waar bi nga xam ne moom la ñu nekk mooy ci réew mi wala ci bitim réew dinaa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy indi jàmm ci réew mi fexe ba askan wi yëpp booloo ku nekk am sa liberté waaye teg ko ci sart yi nga xam ne moom moo tënk suñu réew. que nous nous sommes librement donnés. Je dinaa fexe ba sàmmonteeg li nga xam ne moom la suñu constitution wax waaye itam fexe ba jëmmal valeur yi nga xam ne moom la ñu xamee Sénégal ci xeex boobu nag jigéen ñi ak ndaw ñi am nañ ci wàllu wu rëy ndax ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñooy indi changement ci suñum réew.